أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيها الأحباب درس اليوم عودة إبراهيم إلى أرض الفلسطين mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leçon wu tey ngoon gi mooy delluk yonent yàlla ibrahim ci dëkk boobu tudd Palestine ibrahima jóge na Sham dem Égypte jóge Égypte di dem Palestine Ibrahima tey mu ngi bàyyeekoo dëkk bu tudd Misra jëm Palestine ànd ak soxnaam Saara Ibrahima dem na Palestine mu sax fa ci dëkk bu barkeel boobu yàlla di wax ci Qur'an Palestine dëkk bu am barke la lu tax dafa am jàkka ju fa nekk ju am barke yàlla barkeel li wër jàkka ji jàkka ji nekk Palestine mooy awwalu qiblatin fil islam bu ñu la laajee awwalu masjidin fil ard looy wax ban jàkk mooy première jàkk ci àddina ci kaw suuf déedéet Palestine de Makk Makk awalu qibla fi l'islam première qibla ci l'islam Palestine awalu masjidin baada alhijra
Makka mooy bu Medina Madinatu Munawwara première jàkk ci l'islam mooy Madinatu mooy masjidul Quba jàkk jooju la njëkk a tabax ci lislaam masjidu quba awalu masjidin baadal hijra nag mooy masjidu nabi li may wax est-ce que yéen a koy dégg du benn de première jàkk ci kaw suuf ban jàkk la màkk première xibla ci lislaam ban jàkk la première jàkk ci lislaam ban jàkk la masjidu quba première jàkka bi yonent bi gàddaayee ba pare ban jàkka la dégg ngeen wax dégg ngeen jàkk yi ma wax nag bu nekk soo ko jullee ñaar rakk ëpp na doole moroomam beneen ñaar rakk màkk tolloowul fenn ci kaw suuf ginnaaw màkk Médina la ginnaaw Médine Palestine la ginnaaw Palestine masjidu Quba masjidu Quba ku ko julli ñaar raaka mu ngi mel ni ku umra ku umra ku dem umra mbokk yi Ibrahima bàyyeekoo na Égypte jëm na Palestine ci jàkk ju tedd jooju yàlla di wax ci Qur'an ci dëkk bu màgg boobu yàlla naan subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladi baarakna xawlahu li nuriya min ayatina innahu huwa samiun basir jàkk jooju tey ci gox bu sell yooyu ci pays yooyu foofu la Ibrahima jëm ak soxnaam bu tudd Saara Hajar Saara ak jaam bu tudd Hajara Ibrahima dem na Palestine sax fa toog fa ci dëkk bu barke boobu di wooteel jëm ci yàlla am benn doomu mbokkam benn doomu magam wala rakkam bu ko topp bu tudd luut yàlla tabaraka wa taala daa di yabal ibrahim ibrahima na yabal luut luut dem woote ji ci benn dëkk bu tudd Sadum yàlla def ko yonent lu dem woote ji ci dëkk bu tudd Sadum dëkk boobu nga xam ne ña fa nekkoon ay kàccoor lañ ay bandi lañ ay saay-saay lañ li tax ñu wax loolu mooy ñoom ñoo njëkk a indi mbirum góor jigéen ci kaw suuf dëkk boobu góor ak góor ñooy sëy góor mooy nekk jabaru góor góor mooy am jëkkëru góor ak a xasaw ak a salte ak a ñaaw ak a bon Ibrahima dem dëkk boobu lu dem dëkk boobu afoon di leen waar ñu bon lañ woon ñoom waa waa Sadom dañuy bàyyi jigéen jëm ci góor Ibrahima mbokk yi benn soxna la am bu tudd Saara yàlla tabaraka wa taala namm na nag léegi Ibrahima am ñaareel bi ko yàlla nammee Ibrahima toog ay at ak soxnaam soo tudd Saara amuñu doom ci Palestine ñoom ñaar ñuy bëgg di mébét xam nga sëy li muy neex diggante góor ak jigéen bu yàggee bu ci doom amul rek sëy bi commencé yëngatu lu tax ndax doom dafa bokk ci liy neexal kër ñaari nit rek ci kër góor ak jigéen kese jëkkër ak jabar loolu du neexal kër kër balaa muy neex papa nekk fa yaay nekk fa doom nekk fa kër gi di dund maam nekk fa ak kan ak bàjjan ak kan mag ak kan ak tant ak kan kër gaa ngi bëgg a bëri nit de Ibrahima alayhi salaam di ñaan yàlla tabaraka wa taala pour yàlla wërsëgal ko doom mu jékki-jékki moom Ibrahima mu bàyyoo koo waat Palestine delluwaat Égypte mu jékki-jékki jegewaat Égypte delluwaat Palestine mu yóbbaale Saara ñu ngi ànd ak seen jaam bu jigéen mu tudd Hajara Hajara égyptienne la égyptienne Égypte la dëkk Hajara yaayu Ismaïl égyptienne la nit ku ñuul dëkk Égypte mu dem mu nekk seen mbindaan di leen liggéeyal Ibrahima sax baytul maqdis dëkk bu yàlla barkeel boobu bés yi di paase weer yi paase Ibrahima jëm mag soxna si jëm mag ñoom ñaar ñu dem ba màgget saara ci boppam mu yëg ndeysaan kër gi daal dese naa neex dese naa xumb ndax ñoom ñaar moo borom këram am na lu leen manqué li leen manqué mooy lan doom ju leen wéttali ñuy ñaan yàlla di góorgóorlu di ko sujootal di ko bàkk di ko kaj ba benn bis saara ci boppam moom mi nga xam ne moom lañ mayoon jaam bu jigéen boobu tudd Haajara mu daal di diisoog Ibrahim mu ne ko Ibrahim man de dafa mel ne jamono yi ma toll jëm naa mag toll naa paase naa fu jigéen di amee doom paase naa ko jigéen dafa am période yu muy toll day am doom am période yoo xam ne bu fa tollee dootul ama ci doom dootul ama ci doom mais man de wax dëgg yàlla paase naa fu ñuy amee doom léegi léegi nag lu xew mu ne dama bëgg bu dee du la gêné bu dee yaakaar nga ne baax na ci yow sunu jaam bi nga xam ne ñu ngi ak moom ay ay at yàgg nañu ak moom xam na kër gi xam na la xam nga ko xam naa ko xam na ma miin nañu xam na liggéey bi te ngaa ñëw nga takk ko comme moom xale la amaana yàlla wërsëgal la ci moom doom loolu ñu lay noo de ah jigéen bu takkal borom këram soxna néew na de bëriwul de ngëm yàlla bu dëgg bëriwul lu muy am ci kaw suuf jigéen nekk ak borom këram yenn saa yi sax mën nañu am doom mais jékki-jékki rek daal di koy takkal wujj amoon naa benn bàjjan ni mu bañee wujj da ci daan wax benn wax ci tukulóor da doon wax naw liiw ko dihal kuudi so dee iine luubat anani liyaat
nawliigu ko dihal kuuti so deeƴiino luuɓat déggulen wax bi de mune wujju wujju ndoxum puub la su tee soo ko tegee mu teeyit du ko teree xasaw lu mu teey teeyit day xasaw rek dégg nga de ñeen nga gis olof yi ñoom dañ naan wujju soo koy wax sa tuñ ñi duñu laalante dégg nga waxal wujju ñu ne sa tuñ ñi duñu laalante ngir rek ay fro ay kalima yu ñu indi pour nit ñi di ko daw pour nit ñi bañ ko def ah ba tey jii gis nga di ci jouer ay théâtre di ko yàq waaye yàlla tabaraka wa taala du indi ci kaw suuf du dogal ci doomu aadama lu koy lor lu koy yàqal abadan ma jaala alaykum fi diini min haraj ma jaala alaykum fi diini min haraj yàlla nee na indiwuma ci kaw suuf lu leen di sonnal lépp lu ma indi rek lu baax la wala jigéen ñi niñ bëree bu yàlla waxoon ku góor ku nekk ci benn jabar ngay yem ku jigéen ñi jëm
naaw de
ah xoolal tey ku nekk yaa ngi takk ñi am ñaar ñaar ñi am ñett ñi am ñeenti la jigéen ñaa ngi bëri boobu gëree ba léegi ñi ngi dem beneen bi mooy ay ay ay xikam yoo xam ne taxul sax dars bi jóg xanaa dañ koy romb nii rek boros ko dafa am ay mbir yu nekk ci takk jabar yu bari dafa am ay mbir yu ci nekk da ngay am jabar bu màgget yéen ñaar ngeen yàgg comme saarata nu mu yàggee ibrahim mi dem ba am juróom-ñett fukki at ibrahima am téeméeri at saarata am juróom-ñett fukki at est-ce que xel nangu na ibrahima xëy rek ne ko saara comme am nga juróom ñett fukki at amuñu doom def nga ñibbi waay yow màgget nga léegi loolu rafet na ñaar yooyu tey bu ñu ko doon tànn Ibrahima ne ko léegi damay takk ñaareel wala nga dem ñibbi seen kër takk doom ban métit moo gën a neex moo gën a yomb ñu takk ñaar mu takk ñaareel bàyyi ko ci kër gi mu toog mu yor dundam yor ayam mu toog parce que loolu mooy kóllëre beneen bi mooy tey boo amoon benn jabar ngeen dem ay at mu feebar nga dem ci docteur yi ñu ne la kii de du wér sa ngor lu mu la may nga ñëw ne ko ay moom yow doo wér fase naa la loolu ngor nangu na ko te loolu gis naa ko semaine bii passé rek ku takk xale bu ndaw nekk ak moom xale bi xëy feebar ñu yóbbu ko hôpital tànk yi mënatul dox ñu wutal ko beeke docteur bi ne leen kii France lañ koy fajee kenn mënu ko faj Sénégal ñu ñëw def budget bi mu nekk ay 2 millions et poussière ku jëkkër ji daa jëkkër ji daal di ne man mënut mënuma ko mënuma ko faj fase naa ko. xale bu jigéen boobu suba mën naa dem ko indil fii xale bu jigéen amul amuñu sax doom lañ ñu naan ndeysaan daal di koy fase ci biir xanaa sax mu bàyyi ko ba mu wér bo mais mun ne ko fase naa la parce que yow vraiment sama salaire mënu la faj quoi sama salaire li may am mënu la faj et puis su ma la toppee nii damay ndóol du ma am dara dañ koy fase islam lim la sant mooy kooku bàyyi ko foofu nga takk keneen teg ci wetam mu lay gis nga koy jege di waxtaan ak moom bu ko defee na machine ci waay dafa am ay mbir yu bare bare bare bare yu tax yàlla ne nañu ut ñaari jabar parce que du ngor nga nekk ak nit ah nga lekk biiram naan deretam jël ndawam mu sonn ci yow jural lay doom ba kër gi fees nga xëy na ko demal nga ñibbi war nangu loolu taxuñu woon sax jóg nag mbokk yi ñu def ko beneen yoon daas Ibrahim yàlla daal di nam mu daal di takk soxna soosu tudd Hajar alayhi salaam mu daal di takk Hajara mu neex yàlla tabaraka wa taala ndaw soosu nga xam ne moo àndoon ak Ibrahim ak Saara jóge Égypte ginnaaw ba mu gëmee daawatu Ibrahim mu tuub ànd ak Ibrahim gëm yàlla tabaraka wa taala ci fitra bu yàlla bind yàlla mi nga xam ne mu bind asamaan ak suuf moom Saara mu jàpp sa Haajara formé ko yar ko ba mu xam ci jamono yooyu nu ñuy jaamoo yàlla ci façon jaamu yàlla yi nga xam ne Ibrahima moom la daan santaane ci jëf ju baax mu mun cee taxaw kemtalaayal kàttanam ci la ko Ibrahima alayhi salaam doog a denc mu topp Ibrahim ak Saara ci jaamu yàlla ci kennal yàlla subhanahu wa taala ci sàkku ngërëmam ak topp borom këram di jaamu yàlla comme Ibrahima ni muy jaamoo yàlla ak Saara ni muy jaamoo yàlla mu neex yàlla subhanahu wa taala ginnaaw ba ba Ibrahima nekkee moom ay at mu neex yàlla soxna si daal di ëmb moom Haajar bi mu ëmbee nag xew-xew commencé xew kër gi commencé soppeeku xam ngeen ni jigéen lu mu baax baax rek am na luy des luy wane ne moom jigéen la jigéen lu mu baax baax baax baax day des loo xam ne dañ naan jigéen li mu nekk jigéen moo tax mu wax ko wala li mu nekk jigéen moo tax mu def ko yéegée ne ndaw si ëmb na kër gi commencé ñagas lu tax parce que ñaar ñoo fi nekkoon am na ku fi njëkk amul doom am na keneen ku ñëw mu jëntalu ay fan ay weer ay ay at am lu ko fi yàlla nar a baaxee mooy doom ci kàttanu yàlla saara daal ne ibrahim damaa bëgg daal sa jaareel bi nga utal ko beneen appartement mu dem dëkki foofu man ak moom xëjatuñ ci kër gi loolu ñu naan fiiraange commencé dugg ñoom ñaar seen diggante xam ngeen ni iblis ku yàq la occasion bu nekk iblis day ñëw di profité di fexe jaam bi na imaanam wàcc wala yaakaaram bu mu yaakaaroon yàlla na tas wala wala wala wala chaque jour iblis day profité ci xew-xew yi doomu aadama di xewal ci kër nag ci liggéeyukaay ci place bu mu mën a doon ay doomu aadama di fa daje iblis day profité lu ndaw mooy am rek benn benn ferñeent mooy tàkk rek iblis sotti ci pétrole wala essence mu jëf ci fi commencé tàkk ibrahima di ko saara waxee loolu mu daal di jàpp ci loxo xaajara daal di koy génne kër gi tukkeeg moom jógeeg moom Palestine jëm ardu Hijaz jëm makkatal mukarram Ibrahima kon di ngeen jàng ci dundam Ibrahima dafa wër adduna bi yëpp dafa dox ba dee jóge na Irak dem fan Cham jóge Cham dem fan Égypte jóge Égypte dem fan Palestine tey mu ngi jóge Palestine fu mu jëm mu ngi jëm Màkk ndeysaan waaye Ibrahima alayhi salaam ci fan yi muy préparé di takk bagaasam di jël haajara di ko yóbbu màkkatal mukarram soxna si daal di am doom Palestine Ibrahima daal di koy jël moog doom ji jëme leen màkk ci liir googu mu nekk liir bu tooy xat ak yaayam daal di koy yóbbu ca màkkatal mukarram ibrahima fa mu yóbbu sa haajara amul garab amul ndox amul ay tool ay montagne la ay xeer la amul sax suuf jigéen tey boo bëggoon takk benn jigéen jële ko Dakar yóbbu ko ngin ngi neew te naan ngin ngi neew barkay dibu foofu mooy fan la foofu nga xam ne amul courant dañuy taxan mat amul gaz sondel la ñuy taal damay taxani ci àll bi Ii. man kay demuma foofu man kay na sëy bi sax tas xoola ibrahima moom yàlla moo ñu nettali fël la yóbbu xaaja yàlla mu ne fii waadin gayra zi zarin inda baytika al muharram yow yàlla maa ngi di indi sama njaboot ci xur xam ngeen xur xur muy fu xóot mooy waad gayra zi zarin boo xam ne kenn mënu faa bay lu tax mënuñu faa bay parce que ay xeer la waaye yàlla xur wi day li muy ñàkk bay yépp ci sa wetu néeg bi laa leen indi ci wetu jàkka ji mooy jàkka ji njëkk a tabax ci lislaam mooy màkk inna awala baytin wudia linnas lazi bi bàkka mu daa leen indi foofu daa leen fay teg dafa mel ni nit ñi dañu ne ibrahima moo soxor ibrahima xanaa dafa dof nan lay jëlee jigéen di ko yóbbu ci àll boo xam ne amul ay kër amul ay nit amul tool amul garab gu ñuy lekk amul ndox mu ñu naan ibrahima lu la nga def loolu mu ne rabbana li yuqimu salaa yàlla pour ñu mën laa jaamu inni askantu zurriyati bi waadin gayra zi zarin inda baytika almuharram limaada rabbana li yuqimu salaa yàlla damaa rawale sama njaboot dama leen a rawale moo tax njaboot yi foog ñu rawale leen ku rawalewul sa njaboot rek alku jamono bi ñu toll jamono rawale sa njaboot ku rawalewul njabootam alku da nga leen di rawale indi leen comme internat ñu jàng rawale leen yóbbu leen fenn ñuy former leen yar leen bis boo leen bàyyee ci mbedd mi bu ñu màggee nekk ay mbër wala ñu nekk ay gaynde di simb waaw wala ñu nekk ay fecckat wala ñu nekk ay càkkaaba wala ñu nekk ay rappeur wala ñu nekk ay musicien wala ñu nekk ay agresseur di rey nit ñi te ku ñu rey rek nga am bàkkaar yow seen baay dafa am benn borom xam-xam dafa am doom benn fajar ndeysaan ñu dégg kuy yelwaan ci buntu kër gi ku may dimbali rek doom ji daal di génn rek daal di yenu kiy yelwaan ba ci kaw rek na ku ndullu ci suuf rek papa ji ñëw rek fekk ñu daaneel kuy yelwaan ki mu gis doom ji daaneel ko yéeg ci kaw mu ñëw rek àtte rek daal di sujjóot moom papa yi mu sujjóot muy jooy muy jooy nit ñi ñëw ne ko looy jooy mu ne damay jéggalu yàlla doom ji man maa ko indi ci suuf muy dóoraate dama koy jéggalu yàlla man mi man maa indi doom boo xam ne day lor société bi maa ko dama koy jéggalu yàlla doom bi man maa ci deful sama liggéey ba muy lor waa société bi dama koy jéggalu yàlla allahu akbar kon tey ñi war a jéggalu société bi ñoo bëri doom boo xam ne defoo ci moom li nga war a def ba mu gàddu jaasi di cor ay nit di leen rey yow war nga jéggalu yàlla doom boobu yow yaa ko def waaye gis ngeen doom boobu bu mu gisee papaam def loolu keroog la gëj a laal nit ak loxoom keroog loolu moo doon nuxta boo xam ne daf ciy tourner pour baax loolu moo ko delloo moom doom jooju mu delluwaat nekk ku jub ismaila wilaadatu ismail alayhi salaam juddug ismail na ngeen fàttaliku ne ibrahima alayhi salaam yàlla tabaraka wa taala digoon na ko ci alquran ne ko dinaa la may njaboot njaboot gu teey wa kaana waadullahi maatiya yàlla moom lu mu dige day am yàlla ko waxoon dinaa la may njaboot kon mënul woon ñàkk ibrahima dund ba dee amul doom kon ibrahima foog mu am doom yàlla dëppale leen ibrahima alayhi salaam ak soxnaam suusu tudd haajara yàlla dëppale leen doom jooju yàlla waxoon ibrahim daal di ko koy may moom haajara mu daal di koy jur bi haajara ëmbee ba njuram jege si ci la ko yàlla may doom ju baax doom joo xam ne turam ismuhu ismail alayhi salaam al imam ibnul qayim al jawzi rahimahullah nee na saara jigéen la joo xam ne ci xalis bi la dëkk ci xalis bi la saara dëkk waaye xaajara moom jigéen la joo xam ne fu mu dëkk fu mu dëkk xalis mooy golfe arabe bi ah is haajara nag fu mbaay ko Afrique gis ngeen ñun dañ naan booy takk jabar na nga takk sa mbokk est-ce que Ibrahima dafa takk mbokkam ah est-ce que haajara mbokkam la au contraire gis nga haajara jaam la bu fekkee ab yonent moo takk jaam yonent yàlla Muhammad sax takk na jaam ibrahima maariyatul xibti boobu maariya jaamu yonent bi la woon fa la juddee tey sunu mbiru bopp sunu diina ji ay bakkan da ciy dugg lu ëpp ci ñun ibrahima bu mu juddoo euh, ismail bi mu juddoo ibrahima bëggu ko lool bëggu ko trop trop trop trop trop bëgg bu tar bëgg bu jéggi tayoo ndax benn doom la te bi mu koy am mag la kon laa budda mu bëgg ko waaye ibrahim bi mu juddoo ah ismail bi mu juddoo afoon ibrahima jël leen yóbbu leen ba mag mu laa leen fay bàyyi yaay yaay ji ak doom ji boroom xam-xam yi nee nañ ibrahima bi mu wonee ginnaaw haajara wàcce ko ne ko maa ngi delluwaat Palestine wan leen distance bi diggante Palestine ak mag kan la bàyyeel kan la bàyyeel haajara haajara bi ko ibrahima mu ne ginnaaw dafa téye ci mbubbu ibrahim ne ko koo ma fi bàyyeel mu ne ko sama borom mu ne ko kon duma am problème demal allahu akbar ñooñu dañ ñoo raw tey boo indi woon Dakar jigéen ba fee ci stade bi rek waxuma la sax fee ci stade bi rek nga bàyyi ko fa minuit ngeen ko fanaanal fii da lay poñi ne la yow gendarmerie laa la yóbbu dama la yóbbu dig tey boo jigéen jigéen nga yóbbu ko ci àll tabaxal ko benn néegu ñax ne ko nekkal fii ba ma ñëwaat du doo ko fa fekkaat booy dem nga muy ñibbi seen kër boo koy woon ginnaaw muy ñibbi waaye xoolal Ibrahim di ko Haajara laajee Ibrahim koo may bàyyeel fii mu ne ko sama borom mu ne ko kon ndénkaane bi mot na sama borom du la du ma sànk Ibrahima wone ginnaaw doom ji commencé jooy di wéqu mar naan Haajara mar naan doom ji mar naan indaale wuñu sax ndox Haajara daw yéeg ci montagne bu tudd Safa muy séen ndax am na ñu mu fiy gis ñuy romb wala ñu dëkk ci wetu gor gox bi may ko ndox gisul tus gisul sax garab waxuma la nit mu wàcc safa yéeg marwa xool gisul dara mu delluwaat safa xool gisul dara mu wàcc yéegaat marwa noonu la def di yéeg juróom-ñaari jéegu yéeg juróom-ñaari yoon di yéeg def nii aller retour aller retour aller retour ba mu nekk juróom-ñaari yoon moom ngeen di gis ni nit ñi bu ñu ajijee ñuy daw safa ak marwa diggante safa ak marwa nag bu ma leen ko doon def distance bi su ma leen ko nattal su ma leen ko doon nattal fii ma toog mi ngi mel ne nga dem ba Canada nga dellusiwaat fii ma toog wala lu ko xaw a gën a jege tuuti ba ay croisement sam fii ñu toog ak croisement sam wala Canada noonu la dangay daw ngay dem ñëwaat dem ñëwaat soo demee ñëwaat muy benn nga dem ñëwaat muy ñaar diggante montagne bi dafa am fu ñuy dox am fu ñuy daw diggante ñaari montagne tey ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala boo fa demoon doo sentir ne fii mas naa nekk montagne lu dul di nga fa gis ay traces yu ndaw yu ñu bàyyi ci montagne bi xeer yi ni mu meloon bu njëkk ñu defar ko ba mu rafet bàyyi ko fa pour ku ñëw sentir ne fii mooy point de départ bi fii mooy point d'arrivée ci diggante bi aussi def nañ fa panneau bu verte boo xam ne soo ñëwee ba foofu rek da ngay daw diggante fi fi ngay daw ay panneau yu verte lañ fa def yuy signalé soo duggee panneau bu verte bi da ngay daw bay gaat ci panneau bu verte bi nga taxaw daal di waaxu waaxu ay jéego ci yombalal yàlla tey def nañ ko ba mu ritax ba mu neex sa të- të- të- të- të- dañ ko def ba mu gën a ritax ritax xam ngeen ritax dañ ko def ba mu gën a ritax ritax ñu def ko ba mu gën a nooy nooy ñu def ko ba mu gën a neex neex ngir nit ñi mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala loolu ci barke jigéen bu nangul jëkkëram la amee bi mu defee jéego yooyu daw ñëwaat daw ñëwaat daw ñëwaat septième tour bu mujj bi mu dégg doom bi fu mu tëdd doom bi di salleeru mu daw ñëw fekk xale bi fi mu tëddoon xam ngeen xale xale bu tëddee di jooy nu muy def tànk yi da koy lem di dóor ah foofu mu doon dóor ndeke foofu ball na ndox suuf su ndox bi di génn yenn ci borom xam-xam ñu ne bi mu ñëwee dafa ne ndox bi jam-jam moo tax ñu tuddee ko zam-zam jam-jam nag boo ko déggee baatu pulaar la mooy ndànk-ndànk ñu ne su waxul woon ndox mi baat boobu ndox mi day tasaaroo ci àdduna bi nekk benn dex de mais li mu ko ne jam-jam moo tax ndox mi arrêté nekk foofu gis ngeen ndox boobu yàlla def na ci sutura sutura boo xam ne xéewal goo xam ne ndox mi day faj ay feebar liir naa ci ay téere ñu am cancer naan ndox mi wér ñoo xam ne ay docteur condamné na leen ne leen yow dootoo dundati da ngay dee ñu dem nekk biir kaaba ga di naan zam-zam def ko dund wér kën ñooñu ba ñu ñibbee seen kër docteur yi leen waxoon da ngeen dee bi ñu leen gisee dugalaat leen ci blog yi génne leen dañu ne dañu ne ñooñu yéen lan ngeen doon faju yow loo doon fajoo loo doon lekk loo doon naan ku la faj fan nga fajoo ndaw si ne ko man zam-zam laa doon naan yonent bi lan la wax ci zam-zam
li ma suur lima shuriba lahu loo ko naane rek loo ko naane rek gis naa koo xam ne fii la jóge Sénégal ba di métti mu dem aji bi mu demee mu sël moo zam-zam tuuf ko ci bëti danaan takk ay verre mënuloon liir këy di weex tey takkatul ay verre jazakallahu xeer jazakallahu xeer takkatul ay verre day liir téere bu ko neex ba di wér na kër gis naa koo xam ne fii la jóge aj distance bi mu def ci avion bi biir bii miiti ak lekk yi mu fa lekk musu ko lekk ba mu wàccee aussi lekk yi mu lekk musul lekk mu seere ñu jógee Jidda dem Médine mu yegg rek def direct masjidul rasul mu ñëw rek song bëri ko zam-zam yi mu naan bu biir bi fees biir bi métti bi daal di arrêté ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da nga koy jàng ci téere yi ñu lay wax ndoxum zam-zam lu muy faj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raxase nañ xol bi ñaari yoon ndoxum zam-zam ñaari yoon ci xalimatu saadiya jibril fekk na ko fa xar xol bi raxas ko ndoxum zam-zam mu set pëcc ñu dugalaat ko te amul opération soo xoolee lañ ko xottee bi ko yàlla di yónni aussi xotti nañ ko génnewaat xol bi raxas ba mu set set ak ndoxum zam xam ngeen lan moo yéeme ci ndoxum zam-zam dafa am benn buur ci buuru màkka yi bu tabax benn palais bu ngan rek ci wetu kaaba bi mu def mu def ay machine monte ay robinet këram def ay tiwo indi ay machine pour machine bi nañu xëcc ndoxum zam-zam bi mu dem ci këram ndoxum bi daal di bañ ndox mi lànk bañ a dem ndoxum zam-zam xam ngeen li tax yéen waa Sénégal ngeen koy naan xam ngeen dañ koy def ci ay gutt indi ko mais sinon mu leen am tiwo bu ko indi fi ndoxum zam-zam kenn mënu koo déplacer ci ay tiwo tànk rek def ci gutt yóbbu nit ñi naan kenn mënu koo def ci tiwo comme ñu def la de guerre dañ ko déplacer ci ay ci ay tiwo ngeen di naan di sangu di paccax paccaxi amma ndoxum zam-zam kenn mënu koo déplacer ci ay tiwo mbokk yi ci yàlla lii mooy darsu tey bi ñu ñaan yàlla yem fi insha allah wa ala ba bi